dikkaat ak yéen si émission bii di bànneexu koor comme ni nga waxee woon démb émission la boo xam ne dafa dikk rek ngir wetul kuwante ak yéen ci koor gi ci ay waxtaan am solo waaye si ay thèmes yu am solo ñun tànn semaine bu nekk atem ñu si waxtaanee semaine bu njëkk bi ñi si waxtaanee husnul xuluqi di jikko ju rafet démb ñu indi si point bu am solo mi maanaa bi lan mooy jikko ju rafet tey ñu indi beneen point bu gën a am solo bi ñu wax ahmiyatu husnul xuluqi importance jikko ji rafet ba tey ñu àndi seeg oustaz Xasan Ñaan oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la wàccee sa wàccuwaay bu baax di la bàyyee kàddu gi nga dikkaat ak ñun si lan mooy njëriñu jikko ji rafet nit ki bu jikko ma rafetee lan la koy apporter lan la koy indil ñi bàyyi la kàddu gi wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulillahi alladi bi nicmatihi tatimu salihat wa bi hidayatihi tadhafu sayiat wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sayidina muhammadin sayidi alawalina wal axirin wa ala alihi wa saxaabatihi wa taabiin wa bi ixsaanin ila yawmi diin mbokk yi ginnaaw bañ sante yàlla julli ci mawlaana ngi nuyaat mboolem fu waay mën nekk Euh, ci réew mi ak ci bitim réew rawatina ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ci seen bi nga xam ne mooy at taawunu alxaaji ñu ngi lay nuyu beneen yoon di la ndokkeel waaye di am kontante ak mbette ci delsi guñ delsiaat ci émission bi nga xam ne mooy bànneexu koor comme noo ko waxee rek ñi ngi amaat kontante ak mbette ci laaj bi nga xam ne moom nga ñuy indil tey euh, ci suñ thème boobu nga xam ne moom lañ sofoon ak euh, mbokk yi te mooy jikko ju rafet yi xusnul xulq eh, alxaaji comme noo ko waxee jikko lan mooy important importance jikko ju rafet ndax loolu dana tax ñi gën a yokk suñ yitte ci maanaam di yittewu jikko yu rafet yi waaye rawatina yi nga xam ne màndarga yi nga xam ne dégg nga ku ko wala melokaan yi nga xam ne ku ko melokaanoo rek da ngay bokk ci ñi nga xam ne dañ nañu wooye ay borom jikko yu rafet wala ay borom makaarimul axlaaq eh, kon kon baax na ci ñi xam ahamiyatu xusnul xulqi mooy importance jikko ju rafet euh, comme niñ ko waxee euh, jikko ju rafet euh, dafa am solo lool rawatina ci diine ji ndax alquran ñun yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba kay yàlla di tagg amul dara ci lum ko taggee lu du daf ko tagg ci jikko ju rafet yonent bi ku ne xam ne ne askan bu tedd askan bu màgg ci la bokk mais yàlla ba mu koy tagg taggul ko ci askan yàlla taggul ko ci taar ndax yonente bu ko taaru la waaye taggul ko ci taar mais ci lan la ko tagg def na ko innaka la ala xuliqin azimin kon gis nga nu jikko màggee jikko teddee ba tax alquran yàlla ba muy tagg yonent bi taggul ko ci dara ngir daf ko tagg ci jikkoom ju màgg ci jikkoom ju kawe loolu rek doyoon na rek ñi ne jikko dëgg-dëgg lu am solo la dëgg booy xool yonent bi alayhi salaatu wasalaam nu jikko amoo amee solo ak lu mu bëggee nit ñi bàyyi ko xel ak yittewoo ko moo tax toujours daloon ñaax nit ñi dégg nga ci jikko ji rafet moom sax ci boppam da ngay gis ne moom nee na moom dañ kaa yónni moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ngir mu ñëw matal jikko yi makaarimul axlaaqi innama buistu li utammima makaarimul axlaaqi loolu la waxoon kon da ngay gis ne yonente bi mission bi lu ci gën a am importance mooy ñëw ngir mottali jikko yi rafet yi nga xam ne nii moo fi nekk kon loolu ci mission yonent bi alayhi salaatu kon doyoon na rek am solo bu jikko ju rafet am solo mooy ne mission yonent bi alayhi salaatu wa salaam la loolu bokk na ci lu tax maanaam ñu yónni ko loolu na ci mission moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo tax jaafaru saadiq jaafar jaafar bañ demee gàddaay ca abasa buur ba bam nañee laaj seen yonent bi lan la indi bokkoon na ci lu mu ko wax mooy dafa ñëw ngir indi ñi digal ñi pour ñuy rafetal suñuy jikko yi di taqoo ay makaarimul axlaaq di muñ len lu ne mu limal ko ay jikko yu rafet da ngay gis ne kon diine lislaam dafa yittewoo jikko te daf koy sonnee toujours ngir yar si nit ki doomu aadama bi ngir mu am jikko ju rafet ba tax ne moo tax yonent bi yittewoo gu mu jikko ak am solo gum am solo ak di ko bàyyiloo xel nit ñi moo tax da nga doon gis sax bu doon ñaan day wax ne allahuma xassanta xalqi fa xassin xuluqi yow yàlla rafetal nga sama mbind noo rafetalee sama mbind yàlla nga ko rafetalee sama jikko kon yonent bi bu demee bay toog di ñaan ci ay ñaanam ne yow yàlla noo rafetalee sama mbind mi bind ma bind nu mu rafetee sama jëmm zaahir nu mu rafetee yàlla nga ko rafetee sama baatin te mooy sama jikko moo tax borom xam-xam yi dañuy wax ne jikko baatin mbiru baatin la comme ni nga xamee ne yow sa jëmm ji mbiru zahir la noo tax taxawee nii ñu lay gis am na loo xam mbiru baatin la te mooy sa jikko ji te loolu moo war a njëkk a rafet moo tax yonent daan na ñaan yàlla yàlla rafetal jikkoom comme nu mu rafetalee ba ba nga xam ne daan na bokk ci ay ñaanam bu doon ubbi julli di def iftitaax di ubbi julli moo yonent bi dafa wax ne allahuma ahdini li ahsani l axlaaqi laa yahdi li ahsaniha illa anta yooyu yàlla yàlla nga ma gindi jubal ma ci gën caa rafet ci jikko yi te kenn du jubale du gindi jëmale ci gën saa rafet ci jikko yow lu dul yow wasrif anni sayyi'aha wala nii anni sayyi'aha illa anta te yàlla nga ma moytu ndukuloo jikko ju ñaaw te kenn mënta moytu ndukuloo loolu lu dul yow yaay yaa ka koy may kon yàlla nga ma may loolu kon lii day wane ne jikko lu am solo la lu am importance rawatina ci diine l'islam booy ñëw da ngay xool ne borom xam-xam yi nee nañ xataa booy xool sax arkaanul islaam julli boo gis booy xool da ngay gis ne lu tax ñi koy taxawal sax pour am amee ci jikko ju rafet ndax alquran ba muy wax ne wa aqimi sola inna solata tanha anil fahshai wal munkar gis nga julli dafay tere daf lay tere ay ñaawteef ak ay yu bon kon gis nga lépp loo xam ne lu ñaaw la ay ñaawteef ay yu bon rek yoo xam ne nii jikko loolu moo ko tax a jóg mooy mission jikko ju rafet dëgg-dëgg kon da ngay gis ne julli lu tax ñu ngay taxawal sax pour ñu amee ci jikko ju rafet la boo jëlee lu mel ne azaka yàlla muy wax yonente bi ne ko xuz min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha gis nga jëlal ci seen alal yi loo xam ne danga leen ko sellalee laabaleen lo laabalee leen ko ngir sellalee si seen i jëmm seen i bakkan dëgg-dëgg gis ne kon joxewuñ ko lu dul rek ngir jëlee ci ngir amee ci jikko ju rafet boo jëlee lu mel ne koor boo gisee ba yonent bi di wax na sax man lam yada qawla zuuri wal amala bihi fa laysa lillahi xaajatum fii an yadaa taamuhu wa sharaabuhu képp koo xam ne yaa ngi xoor te mënoo bàyyi ay waxi caaxaan ay wax yu bon wax yoo xam ne amul benn njëriñ yow jërul ngay bàyyi lekk ak naan ndax yàlla amul soxla ci sa koor googu parce que koor gi ñu ci bëgg luñ ci bëgg nga jëlee ci mooy jikko ju rafet moo tax yonent bi daan na wax sax ne nit ki da nit ki dana jotee ci jikko ju rafet dana ci jotee dara jaay koo xam ne dafa taxawee woor weeru koor ba weeru koor bi jeex ànd ak def ay nawaafil mu ne dana ci amee dara ju kon ngay gis ne jikko dafa am lien dafa lien dafa am lu lum lu mu taqoo ak li nga xam ne ni mooy koor moo tax kon koor naka de buñ koy def sax da ngay gis ne pour amee ci ay jikko yu rafet la boo jëlee lu mel ne xaj tamit noonu parce que alquran ba bi wax ne fa man farada fii na fii na alxajja fala rafasa wala fusuqa wala jidaara kon da ngay gis ne xaj sax dañ koy def ngir ngir jëlee ci ay jikko yu rafet ba xam ne booy xaj alquran yàlla daf lay wax ne boo demee amul waxi caaxaan ay caaxaan wala ay ñaawteef yooyu amatul sa kon yooyu yëpp dangay gis ne luñ ci bëgg a jëlee mooy jikko ju rafet gis nga kon jikko ju rafet lu am solo la lu am importance sax ci ci diina lislaam ba tax na da xool sax yonent bi day wax ne awwalu maa yudaau fil mizaani xusnul xuluqi nee na luy ñuy njëkk a tekk rek bis penc di ko peese ci jaam bi pour xool ay jëfam yu baax ak yu bon ban moo ëpp nee na bu ñu njëkk a teg ci balance bi mooy jikko ju rafet la ñuy njëkk a teg ma ne loolu rek doyoon na importance su jikko ju rafet dégg nga moo tax dëgg-dëgg yonent bi ku doon sonnee la di ñaax nit ñi di dénk am na bis Muaz ibnu Jabali yonent bi def na ko xassin xuluquka ma ci naasi yaa Muaz ibnu Jabali na ko yow Muaz na nga rafetalal sa jikko rafetalal sa jikko ànd ak nit ñi booy ànd ak nit ñi na nga rafetal sa jikko yow Muaz kon ma ne jikko ju rafet lu am solo yonent bi jàngal nañu ko da si ay adis yu bëri moo tax da ngay gis sax ci hadis boo xam ne yonent bi di dénk benn waaye ñëw waa ji ñëw na ko yow yonent bi damaa bëgg nga dénk ma def na ko euh, ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha waaye wa xaaliqi naasi bi xuliqin hasanin mu ne ko euh, yow yonent bi euh, dénk ma yonent bi daf na ko ragalal yàlla fépp foo mën a nekk tey mu ne ko beneen bi mooy eh, boo defee jëf ju bon xoolal gaawal nga tuub dellu ci yàlla te nga def ci jëf ju rafet parce que loolu mooy évanger jëf ju bon jooju beneen bi mu ne ko wax xaaliqi naasi bi xuliqin xasanin mu ne ko dell jikkoo del ànd ak nit ñi ci jikko ju rafet del ànd ak nit ñi ci jikko ju rafet di jëflante ñoo ci jikko ju rafet kon alxaaji lii lañ leen indiloon ci wàllu important yu jikko ju rafet kon eh, ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñi ay jikko yu rafet ay makaarimul axlaaq naan incha allah buñ ñu toppee rek suba wala beneen yoon dañeen indil ci ay mandarga yu ñu xamee jikko ju rafet na kii borom jikko ju rafet na wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin rajaa'i raf'u ddiini wa sunnati allati tajaahalaha al aqwaamu fi kulli qaryati